waaye yaakaar naa ni bu ñuy wax ak Macky sàllit it ñu ngi wax ak ñun ndax ñun lañu fa doon wax yaakaar naa ne muccuñu ca doonte bëgguñu woon mu demee noonu waxoon nañ leen ne leen danañ leen ko faram-fàcceel benn par benn waxtaan nañ ci ñaari magi yor-yor yi nga xam ni ñoom ñoo ci addu kàddu yu yu léegi itam wax nañ leen li ci Mamadou Diop Decroix wax mook Cheikh Tidiane Sy kon ci vidéo bi dañoo fas yéene waxtaan ci ak yéen ci ki nga xam ni moom la église yabal muy ndawam di ko teewal ci bërëb ba mu wax ni pour bâtir un Sénégal de justice et de paix il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue nee na pour ñu tabax Sénégal gu am yoon yoon di fi dox jàmm ji ne bay nee na amul weneen yoon wu xam moom wudul ñu toog waxtaan waxtaan dey moom la mag ngi daan wax naan dundu gor la daan indi ab gindikonte dana leeral lu leerutoon dana tax itam ñu mucc ci loo xam ne lii bu ñu ñàkkoon a waxtaan loola ñëw te bu ñëwee du gën kon waxtaan moom ku ko bëgg a dàq mooy xamuloo li xew waaye nag ci cas de figure bii ngay wax nii waxtaan sooy waxtaan da ngay wax ak koo xam ni kii waxtaan dong ko tax a jóg te wër ngaa xam li ngay waxtaan ak moom ndax lu jara toog waxtaan la wër ngaa wax ak waxtaan ak tam koo xam ni kii li ngay wax ak moom séentu nga mu jur dara waaye koo xam ni kii daf laa woo ngir jëmmale ay mbiram bëgg a def mbir nga légitimeel ko ko nga saxalal ko ko nga naatalal ko ko mu won à la face du monde àddina yépp gis ne waaw wuyu ji nañ ko de kon la mu bëgg dëgg la li ngeen bëgg a def muy légitimer reportu élection loolu mooy tooñ rien de plus lu ngeen mën a wax waxuwul ndokk ba nga xamee ne yow moom say wax tegal nga ko ci baaraam ne ko loolu mooy li mën a ne kon day siggal nga askan ndax nag dëgg moom benn rekk lay doon ñaari dëgg du am ñaari dëgg du am soit ñun ñii ñoo waxul dëgg walla boog ñee ñoo waxul dëgg te ku ne xam na ne lii ak tooñ la kenn mënu koo tuddee leneen le chef de l'État est le garant de la paix et de la justice du pays, des citoyens et de leurs biens kooku njiitu réew moo ko war a suuxat su demee nag ba moom loola muy def luy safaan loola kooku bu woowee nit ñi ci dialogue yàq jaxase salfaañe ba pare wëlbatiku ne kaay leen ñu toog waxtaan loolu pour lan waxoon naa leen ko fii saa yu jekkee amul soxla il applique yaay doole comme la mu defoon ci Fatick dóor nit ñi ay kurpeñ dugg woote <laughs> loolu la xam xamul leneen kon kooku su leen di woo dialogue c'est parce que moom dafa jekk di te loolu mooy li wér nan ngay woote jaloog te fekk yow durant presque douze ans nga jàpp ay nit di tëj di tuumaal ay nit bu ndoxatal ay nit am ci ñu dee ñoo xam ni kenn mënu ca ragg sab der parce que la tax ñu dee ci yow la sababo di daq ay nit wala di leen dàqlu abusivement tas parti politique yi ñi ci des nga bayone leen monsieur le représentant de l'Église su dialogue que vous franc basé sur la vérité Il n'existe pas, hélas. Vous dites que la vérité rend libre. dëgg dafay yewi nit. Malheureusement, c'est pas dans ce que ça se passe. Parce que amna fi ño xamni ni deug mo tax ñu dugg ci kaso bi. Kon dëgg ga libéré wu len. Waye ba nga xamee ni liberté physique lañ len privé. Am na ñoo xam xamni su fekkee ne ay nit lañ liberté morale lañu ñu ñàkk ci tooñ goo tooñ ay nit jalgati seen xàq bundu xataal leen yow doo am sax liberté morale loolu nga wax nee nga moins ñaari dialogue yi moins d'un an ana pëlxoog pëccëxoo beeg parce que tout simplement lu rëy moo fi xew rëy moo fi xew loo xam ne lii waroon naa mën a baña am bu Macky sàll bàyyi woon élection yi ñu continuer sans invoquer les les les raisons fallacieuses waxtu yu fekk nañu pare ci wax ji ba kenn du fi woote ay dialogue kon yow moom ñu ngi lay sargal dëgg yàlla li nga wax à part remarque yii ma ci am awma ci lu may wax awma ci lu may wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu